ñu amul doom ni jaga ya tëdd di nelaw rek waye bax na léegi moom kër yi mag ñi do ngay duy ndox yi eh wa Fama yow li war na la Fama gis nga li nga sol a ah, Fama yow li nga nar a demee marché Fama. lu papa tamit li lu si Fama si lépp mi ngi Fama doo mën nit ku baax day sol lu baax Fama xoolal sa létt yi bële yi Fama weeru koor jigéen ñi baax ñi dañuy fireeku booy mën a jàpp muy mën a dugg sa bopp ah. papa li kat xam nga xam nga lu ma lay xam no xala fàttu si biti dem changer sa yére yi ah mooy la. papa daal man nii laay demee lii dara nekku si lii dara nekku si. lii moom doo ko génne kër gi moom. lii moom bu soobee yàlla. sama yaay sama yaay moo ma ko jënd moo ma ko jënd. sa yaay duul nga génne kër gi man doo ma yab ñaari yoon. marché laa jëm de du ma changé de marché laa jëm. lii doo ko demee marché de lu leer laa la wax damaa bëgg na nga dem changé sa yére yi sol yére nit ku baax man man daraja bi ma am ci koñ bi notable bima don doon ci koñ bi sama doom di génn di wane lii ah. papa luma ma wane. Fama lii moo tax yéen góor ñi di leen agressé. ah sama yaay moom ko jënd da ngay wax ak sama yaay yow temps yi da ngaa bëri wax. mu demal sa yaay lay jox sama xaalis ngir yàlla ak yonent bi waroo jëndal xale bi yëre yu mel yëre yu bon yi. mais kii nag da cee toll moo tax mu koy def di jeex. ak weeru koor bii. ak weeru koor bi mais da cee toll moo tax ñu koy def. ah waaw da see toll. parce man bi ma siy toll ba nga may bëgg nii nga ma gisee ba bëgg ma ba takk ma indi ma si kër gi kon nag bàyyi ko rek mu def ko bu ko weesoo dina ko bàyyi. est yow jamonoy koor la mais jë yow ma jamonoy koor mais xale du ko fi defee. xale la bàyyi ko mu def lu ko neex. kii yëpp kii xanaa sama bambara lay jaar waaye kii du ko fi defee. lii moom doo ko génnee marché bi lii nga dem ak marché bi noonu doo ko fi defee xanaa sama bambara ngeen di jaar. bu ko dépassé rek dina ko bàyyi. ah bu ko dépassé. waaw parce ko fi moom da koy dindi. waaw wuy ma ma dinañ waxtaan après. amul moom lu gis nga da cee toll bu bu ko weesoo dina ko bàyyi. na